maxdari wa taatifi bi nadaratin taati lana bi zafari ña nga woon démbu ci yonent yàlla ibrahim ak i nitam ña ah, namrud mi nga xam ne moo doon buuri réew ma ca jamono jooj moo woon àddina gis ngeen pexe moom ko defoon démbu ah, daf na ko wax waa dëkkam yëpp réew ma yëpp na leen nañ taxan ñi taxan matt yu bëri dugal ci yonent yàlla ibrahim waaye lakkut de bañ ko duggee rek la yàlla jox ndigal wa safara wi ne ko na nga sedd seddab jàmm ci ibrahim kon ñooñu loolu lañ bëggoon pexeloon ibrahim pour pour mu dee ñoom ñu noppalu waaye seen pexe ma yépp gis nga fa ko yàlla mujjee de lañ bëggoon amu ko moo tax buur ne wane jey naaw musal ko moom ibrahim wa luutan ak luut ñi musal nag yonentu yàlla ibrahim ak yonentu yàlla luut mbokkam luut doomi mbokkam la haaraan mbokk yonent yàlla ibrahim moom moo juróon euh, moom moo juróon Lut de haaraan na bi nga xamee ne euh, jugal nañ ci yonent yàlla ibrahim ci sa biir safara te lakkut mi ne ah ibrahima moo njabar safara bi ba safara bi mënta lakk kenn kon daal safara bi moom mënta lakk kenn te luy sama tegtal ci li wax mooy nañ jël kenn rek ñi sànni ko ci safara bi ñu seet ba xam ndax dana lakkam du lakk ñi jël benn góor ak sànni ko ci biir safara bi dañ bañ ko sànnee toog tuuti rek dégg biir ba ne tëll ñi xam ne ñi xam ne dee de waaye nag biñ ko sànnee safara bi lenn ci takk-takkal safara yi naaw dal haaraan ci loxoom yi loxoom yi lakk ak ak xarxaram xarxaram bi yëpp mujj lakk de haaraan moom nag moo jur a lóot Ibrahima la de lóot nag taalibi yonoon ci yàlla Ibrahima loon waaye yàlla def na ko yónnantu mu bokk ak ibrahim ci yónnantu ko de moo tax bu ne woon ne jeynaawu te ñu musal ko moom ibrahim wa luutan ak luut ilal ard ñu jëm ci suuf allati ya nga xam ne baarak naa barkeel nañ ci moom lil aalamina ñeel mi defi ñi ñii jëmee leen nag ñoom ñaar ci suuf ibra eh, eh, ibrahima daal di gàddaay jóge iraq ah, ànd ak sarata eh, dem bilad sham ca ñi nekk foofu ca bayt maqdis fa lañ dem ñoom moom ak soxnaam saarata ah lut moom dem dëkk bu wax mutafika moom fa la nekkoon dëkk boobu nag yàlla barkeel na ko muy bayt maqadis yàlla def na fa ay ay garab dafa bëri woon ay garab bëri aw bëri ay sewnde dëkk ba seddu guy moo tax yàlla dem na ko mu barke de woo am naa tañ may lewu ñeel ibrahim ba muy ñaan ñaanam nga ne yàlla yàlla nag may doom ñi may ko isxaqa isxaqa wa yaquba yaquba naafilatan mu dit ndollal de ci ñaanam yàlla nag may na yonent yàlla ibrahim gannaaw ba mu ko may ismail may na ko isxaqa may na ko isxaqa waaye ci ganna isxaqa may na ko ti yaquba muy doll muy dollil ci ñaan gam ñaanoon ne yow yàlla yàlla nag ma may doom yàlla may na ko uh, doom de wa kullan képp ci ñoom muy ibrahim muy muy muy baaji ak ak ishaq ak yaquba ñoom ñëpp jaal naa def nañ leen saalihina ñuy wayiw de eh, def nañ leen ñi nekk ñoo xam ne ay saalihina lañ ñoom ñëpp def nañ leen ñi nekk yonent de wa jaal naahum tañ def leen ahimmatan ñi ñii njiit yahduuna ñi jubal nit ña bi amri naa ci ndigal suñu jëmee ci diina de waawaay naa te ñu wax yu ilayhim jëm ci ñoom waaw hay naa woo nañ nañ ilayhim jëm ci ñoom fiilal xayraat yi jëf yu baax yi de way xaama salaati ak ak taxawal julli wa itaa azakaati ak joxe azaka wa kaanu nekkoon nañ aabidina ci jaamu la naa ñeel ñu de yàlla nag woo yu leen na leen ñu jëf lu baax ñoom lu baax rek lañ daan def de dan dan taxawal julli ak joxe asaka nekkoon ñoo xam ne yàlla rek lañ doon jaamu de soxlu dara lu dul jaamu yàlla rek lañ soxla de walluutan tuddal solos yonent yàlla lool aatee naaw jox nañ ko xukuman xam-xam nga xukuman nu bu wade a ah, ah, jox nañ ko xam-xam muy àtte diggante ñaari way xuloowaale waaye man ak xam-xam jox nañ ko ko wane jey naaw musal nañ ko min alqaryati ci ñu ñëpp dëkk allati ñi nga xam ne kaana nekkoon nañ taamulu di jëf alxabaisa yu bon yele innahum naka ñoom kaanu nekkoon nañ xawma saw indi nit ñu bon faase te nañu di way génn topp euh, euh, topp yàlla de yonent yàlla lu nag yàlla yónni woon na ko ca ñun dëkkam ba muute fi ka waaye ñun dëkkam mooy ñi nga xam ne ñoo daan def lu bon mooy laal góor ci dubur ñoom loolu lañ daan def loolu rek lañ soxla woon waaye yàlla musal na ci lool ba bokku ci de keroog ba nga xam ne mbugal mi ñëw na mbugal moom leen di halakee yàlla musal na lool de lool ak ña ko gëmoon musal na leen waaye ñoom ñëpp de ñoom ñëpp yàlla mujj nañu halak leen ñoom ñëpp de wa adxalnaahu te ñu xarafa leen innahu naka moom lool min as-saalihiin aji bokk la ci way yiw jàngal solos yonent yàlla nuux is naada ba mu ñaanee ba mu ñaanee boromam min rab min qabli ci njëkk de jàngal solos yonent yàlla nuux nga xam ne moom yàlla daf ko yónnoon moo jiitu Ibrahim moo jiitu Ibrahim jàngal ba muy ñaan nitam ña ndax yàlla yónn na ko ca ca ca ca ca ñoom njëkk ba mu sax junne at ne la juróom fukki at di leen oo ñi gëm yàlla ñoom ñi bañ ne duñ gëm yàlla mu ñaan leen yàlla ne bi laa tazar alal ardi min al kaafirina dayyaara yow yàlla yàlla bul bàyyi kenn kuy wéti yàlla ci kaw suuf ñoom ñëpp nag leen rey de di diggante Ibrahim ak noo junne at dox na seen diggante moo tax euh, bu ne waskur jàngatal euh, euh, nu an solos yonent yàlla nu gis naa daa bu mu ñaanee mooy ñaan nga de rabbi laa tazar alal ardi minal na dayyaaran min qablu ci njëkk Ibrahim de fastajabnaa tañ nangu lahu ñeel ko ak ñaanam de fannajaynaahu tañ musal ko wa ahluhu ak ñoñam ca gaal ga minal karbi ci njàqare al azimi kay aji màgg de wa nasarnaahu tañ dimbale ko minal qawmi ci nit alladin ñi nga xam ne kazzabu wét nañ bi ayatinaa ci tegtal ci tegtal suñu de ak yónnantu innahum naka ñoom kaanu nekkoon nañ a xawma saw in ñu bon faax na am tam labal leen ca tuufaan aj may na mboole seen ñoom nag ñoom yonent yàlla nit yonent yàlla noox yeen noonu la yàlla def de ñoom ñëpp yàlla bañ weddee yàlla weddi yonent yàlla noox ah yàlla xalag na leen de xistaam nettali woon nañ ko te dana ñëwaat ci kanam waaye netti eh, eh, ñoom mu labal leen ca géej ga de ñoom ñëpp ñi dee ñoom ñëpp ñi dee ñi nga xam na ñoo weddi woon noox yëpp de waskur jàngatal wa daawuda wa daawuda jàngal solos yonent yàlla daawuda wa suleymaan ak suleymaan iz yaxkumaani ba danañu xatte ñoom ñaar fil xarti ci mbay is nafashat bëri jee is nafashat ba lokkee fii ca a fii ca tool ba xanamul qawmi gàttaay nit ñele wa kunnaa tañ nekk shaahidina di way seede di xukmim ci xatte seen jàngal solo si yonentu yàlla daawuda ak yonentu yàlla suleymaan bi nga xamee ne yonentu yàlla daawuda nekk na di ab yonentu waaye yàlla defoon na ko mu nekk buur seen ñooñ dëkk dëkkam ba nag bés benn waaye boo xam ne bu sàggan na woon am ay juróom waaye nag yeewul leen sàmmul leen dafa leen a bàyyi rek mu bàyyi leen nag gàtt yi di dox di dox ba bés rek ñi dem ci benn tool tooli jàmbur yàq tool ba la fa ne yëpp lekk ko ba mu jeex takk <coughs> ah borom tool bi nag yëg loolu ñi ànd ñoom ñaar dem ci yonentu yàlla daawuda pour mu attelee ndax moo doon buur ba yonentu yàlla daawuda ñi wax ko lu xew ah ba mu leen atte mu xool ne eh, tool bi bu ñoroon bu ñoroon xiimaam moo gàtt yi ñooy tolloo ci alal mi ne léegi borom tool bi na jël gàtt yi moo ko moom boroom gàtt bi jëlaat eh, eh, eh, moo moo moo ko moom te mu jël tool bi mu jël tool bi daal mu jël gàtt yi daal ñu fayee ko gannaaw jur ñoo lekk toolam bi bi mu leen attilee loolu nag bañ dem ba ñuy dem ci yoon ñu dajee yonentu yàlla Suleymaan boobu mi ngi amoon fukki at ak juróom-benn boobu mi ngi nekk xale mu ne leen suma bàyyi lu mu leen atteel mu ne su de wax na ne mm, boroom tool bi na jël. na jël gàtt yi borom tool bi na jël euh, gàtt yi loolu la ko fayee mu ne ah man de su fekkoon na man maa doon àtte dinaa àtte leneen lu dul loolu ñoom nag ñi dëpp dem ci yonent yàlla daaw da waxoon na ko Suleymaan nee na de bu fekkoon ne moom mooy àtte dina àtte leneen lu dul lii mu mu oo Suleymaan mu ñëw mi ne ko gëj naa mi ne ko ci xaqi jur gi mën a jur ak ci xaqi xam gi nga xam ne man yonentu laa bu doon yow yow naka ngay àttee te boobu Souleymane xale la ñu ne ko su bu ma doon àtte man damay wax ne ah borom tool bi ñu yàqal na jël jur gi di ci jëriñoo ci meew mi ak jur ga ak wabar ga borom to borom gàtt yi ñi jox tool bi mu koy roose di ko di ko roose di ko toppatoo ba tool bi delluwaat ni meloon bu tool bi delluwaatee ni moo meloon borom tool bi. ñi delloowaat ko toolam borom jur gi ñi delloowaat ko juróom de ah Daawuda ne ko lii mooy atte atte baa ngi nii nag lii mooy atte moom lay buute woon fa xam naa ateñ déggloo atte ba Suleymaanu Suleymaan wakkul lan képp ci ñoom muy Daawuda ak Suleymaan aatee naa jox nañ leen xukuman nubuwwa de waaye man ak xam-xam ah buur ba atte ba nag yàlla déggloo na ko yonentu yàlla Suleymaan de gis nga Cheikh Ibrahima Niass mi ne Daawuda moom dafa boole cosaan ak banqaas moom la boole boole bànqaas ak cosaan waaye Suleymaan moom di tax atteem ba gën moo dafa boole cosaan ak cosaan boole banqaas ak bànqaas loolu moo tax atteem ba atteem ba moo gën a jubde foofu lañ jëlee nag ijtihaad foddu ci xatte foddu ci xatte Daawuda lii mu atte duhul wax yu goo xam ne yàlla moo ko ko wax yu ndax bu nekkoon ne yàlla moo ko ko wax yu kon atte ba dara du ci changé kon Souleymane du soppe atte bi waaye ci fotoom ci góorgóorloom eh, ci la ci la atte atte boobu ba Souleymane ñëwee atte yi mu gis ne atte Souleymane moo gën mu atte ñu woyal atte Souleymane kon ñoom ñaar ñëpp lañ atte woon duhul yu ndax bu nekkoon woyu rek daaw de la woon bu nekkoon woyu kon dara du ko changé kon nag foofu lañ ne nit ki mën naa góor ba atte yonent bi sallallahu na ne nag ku fadu góorgóorlu ba atte mbir mu dëppoog na ko yàlla bëggee da nga am ñaari yoon waaye su fekkee danga nga atte ba dëppoon ni ko yàlla bëggee ngir juum da am benn yoon rek da am benn yoon waaye loolu yëpp li ko lal mooy lan mooy dëggu njëkk mooy dëggu njëkk boo ne xamee ne kii ku la nga atte juum yi dañuy xam ne da nga rek waaye terewul da nga am da am da nga am benn yoon de moo tax mi ne ko kullan képp ci ñoom ñaar ate naa jox nañ leen xukuman ate ah ah xukuman nu boo waaye man ak xam-xam de wasaxar naa tañ tàggat ma daawuda ànd ak daawuda aljibaala doj ya buy sabbal ñi sabbal ànd ak moom yu sabbix na dañu ñi sabbal ànd ak wa tayra ak njanaawi de wakun naa tañ wakun naa nekkoon nañ faay ne di way jëf de ñoom sule daawuda nag muy yonentab yàlla ba yàlla tàggatal ko yàlla tàggatal ko euh, moom daawuda bu daan jàng zabur di di di jàng téereb zabur bi ñu wàccee woon moom bu koy jàng doj yeeg euh, njanaaw yeeg yépp dañuy sàbbal ànd ak moom ngir neex baatam ga moom daawuda dafa neexoon baat bañ ne xalam yi ngeen gis ak lépp li nit di mbir bee muy neex rek ca baatam daaw dafa leen ko jëlee rek def ko ngir baatal bi ni neexee woon moom yonent yàlla daawuda moo tax bu doon jàng zabur mboolem joj yi ak mboolem janaaw yi dañuy dañuy dañuy ànd ak moom de dañuy ànd moom ngir neex baatam nga de ku neexoon baat ban netti li nañ sax ne ñooñ aljana buñ jugee aljana nekk ca xéewili aljana di ci bànneexoo di ci bànneexoo jamono ju yàgg-yàgg yàlla dana ñëw yundu leen ne ndax ma dolli leen ñi ne ko ndax yow yàlla teraange gi ñu nekkee ndax mën nga cee dolli dara mi ne waa ma naa cee dolli dara ah mi ne leen ndollal bi mooy leen wàccee naa sama ngërmande ci yéen dootuma leen mereeti mukk buñ damaatee ab diir ab diir ab diir bu yàgg yàlla daal di ñëwaat ne leen ndax ma dolli leen ñu ne ko ndax yàlla yàlla lii am nga luñ ci dolli mi ne waaw yàlla oo yonent yàlla daawuda mu ñëw taxaw seen kanam jàng zabur neex baatam nga ñëpp daal di xam ngir neex baat bi neex baat bi neex baat ñëpp mu jàngal ko ñoom ñëpp daal di xam buñ toogaatee jamono ji yàgg yàlla ñëwaat ne leen waaw ndax ma dolli leen ndax ma dolli leen ñu ne ko yow yàlla ndax lii am nga ci ndollal mu ne waaw waaw mu oo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw seen kanam jàng saaru rahman ñëpp dee ñëpp dee ngir neex baatu yonent yàlla Muhammad bu ñëpp dee nag a dekki laa leen def kon neex baatu ngoog léeg-léeg nekk neex baat kon dañ ci déggee ne neex baat mën naa xamloo nit waaye neex baat it mën naa rey nit de waaw moom nag moom daawuda de waa lam naaw xamal nañ ko sanaata la buusin ak xarala gaa moom liggéey mbubu koŋ la de li yox si na kum ngir mu tatal leen min baasikum ci ay eh, eh, eh, ci ci xale seen de fa antum ndax yéen shaakiruna ngeen sant de ngeen sant yàlla de ci xéewalam ba dëggal ak yonentam yonent yàlla daawuda ngoog nag yonent yàlla daawuda ni ko yonent bi sallallahu alayhi mel ne yonent yàlla daawuda daan or benn bés dog benn bés jamonoom yëpp noonu la ko doon defee yasuumu yawman wa yuftiru yawman daf daan or benn bés or benn eh, eh, eh, daf daan or benn bés dog benn bés daf daan taxaw guddi genn wàllu guddi yëpp daf ko daan taxaw di ko jaamu yàlla benn gud genn benn xaaj bi mu nalaw ko ku daan jihaad la moom yonent yàlla daawuda te mësta daw ci le ci ci lefam xare mosu cee daw moom nag moo njëkk def rajo rajum moo ko njëkk def bi mu nekkee buur yàlla def ko buur bés dafa génn rek sibilu sol yére boo xam ne xamewuñ ko ko mu dugg ci biir ni ñi di laajte ne leen waaw yéen seen buur bi moom du ngeen xam ci moom kum dajeeg moom rek ñu ne ñu ne ko ah, moom kay xamul moom benn ayib buur bu baax la macha allah buur bu baax la amul benn ayib bu nekk ci moom bés nag muy def moom muy dem ba benn bés nag mu génnaat di laajte ne waaye yéen du ngeen xam seen buur bi du ngeen xam ci moom kum laaj rek nga wax ci moom nekk amuñ ci benn ay rek jibril wàcc soppiliku euh, doomu aadama ne mu laaj ko ko mi ne ko ah seen buur bi lu ngeen mi ne ko buur bu baax la waaye bu fekkoon ne da doon dund ci ñàkkam daal kenn gënu ko waaye moom ci béyti maa rek lay dund de ah yonent ci yàlla daawul nag dem kon li nga gis ne président yi di def yi da ngay toog rek gis ñii si lu génn dugg yeneen oto yi ñu leen xaw sol yeneen yére yoolu daaw da moo ko njëkk a def ba mu nekkee buur di xool pour sikkam loolu def na ko pour xam ndax nit ki du nit ku nekk rek am na sikk bu nekk ci yow te bëgg naa xam sikkam bi nga xam ne moo nekk ci moom pour moytandiku ko moo tax daaw da def loolu ba mu delloo këram nag mu ñaan yàlla ne yow yàlla yàlla nag ma xamal métier moo xam ne dama koy métier woo di ci dundee walis may dundee ci baytimaam ah yàlla nag daal di taw ci këram ay fee ay weñ weñ gu ñuul ak ngurdi ak i përëm loolu yëpp mu mu mu taw ko ci këram ebal malaaka mu ñëw mu nooyal ko mu nooy mu ñëw muy liggéey ay mbubu koom muy liggéey ay yére muy gis daaw de nag di ko toppatoo ba mu ba gis ne man na malaaka mi dem daaw de liggéey di liggéey ay mbubu ay mbubu koom yu bëree bëri yëpp boo <clears throat> fekk Luqmaanul Hakim ma nga dëkkoon ak moom teer bu jot rek mi ne bëgg naa ah, xaaral ma laaj daaw ci lim ne nii lan la lim ne nii lan la waaye daal mi ne xaaral ma bàyyi ko bi mu ko bàyyee nag ba mu liggéey ba pare ba sol yére bi rek rek Luqmaan ne ah yére bu man ci yére xale dëgg ngi nii nag moo tax mu def ko ay mbubu konge di ko jaay nag képp ku oh, bépp buur yi àddina ak ñu bëri ñi nga xam ne am nañ ay soldat di jëw ci moom di ko jënd muy am xaalis di ko dundee moom yonent Yàlla Daawuda loolu moo doon métier loolu defoon métier ni ki nga xam ne yonent yàlla Idrissa moom métier moo daan ñaw daf daan ñaw moom tailleur la woon daf daan ñaw ñi koy fay mu koy dundee yonent yàlla Idrissa ci loolu nekkoon yonent yàlla Muhammad li ëpp ci lim daan liggéey ci këram ñaw la woon daf daan ñaw moo tax daanga dégg shaayir ba ne wa yaqdumu lil ahlina a yaxsifu nahlahu wa yaqtahu lahman huwa li thawbi yarqa'u shaayir ba moom loolu la wax ci xaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir loolu la doon nga xamee ne nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na loolu daf daan ñaw lu bari ay yéreem bu xotti ko woon daf ko daan ñaw ay jabaram seen yére bu xotti ko woon daf ko daan ñaw ay moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax na ne gën ci métier boo xam ne jigéen dana ko métier woo ci biir këram mooy muy lett muy lett solo nañ ba tey jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi ne euh, euh, sàmm ni ki nga xam ne mboolem yonent yi sàmm na yonent yi wax na ne maa baaxal sal yonent yi wax ne maa baaxal laaha nabiyan illaa raal ganama yonent bi nee na yàlla yónnul benn yonent lu sàmm na de ñu ne ko attaaya yonent mi ne waaw ne kon naa ci xuri màkk yi daan daan sàmm foofu kon sàmm na moom yonent bi sallallahu alayhi wa waaye métti yëpp gannaaw nubuwa jihaad moo ci gën gannaaw nubuwa bi ko yàlla jox jihaad moo ci gën gannaaw jihaad nag nga ndax jihaad li tax mu gën moo daan métier wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi wax na ne nit ku nekk na natt li ko yàlla di mayee wërsëg man nag sama wërsëg mi sama cat xet wi yi ci la nekk de kon loolu moo doon loolu moo doon métier jihaad moo tax gis nga xare yim xare yëpp bari na lool lool de gannaaw métier nag li gën ci métier yi mooy commerce commerce yi moo gën ci métier yi de ndax moo doon métier Aboubacar moom la métier woon ak Omar ak Ousmane waaye nag kuy def commerce yi ci charte bul mukk gannaaw mi gannaaw commerce nag mbay moo gën ci métier yi gannaaw gannaaw loolu tabax moo ci gën gannaaw tabax nag métier yi tegu ndax aadama ñeenti métier yi la wàccee woon ci àddina de junne métier la wàccee woon waaye ñeent yooyu ñoo ci gën a siiw mooy ñaw ak tabax ak mbay ak samp gouvernement dégg nga ah, yonent yàlla daawud nag moom loolu la doon moo tax buur ne wa allam naaw tañ xamal ko sanata labuusin ak xarala gaa moom liggéeyam bu bu de li yox sinakum ngir na mu tata leen min bax si kum ay xare seen fa antum ndaa fa antum ndaa yéen shaakiru na ngeen sant sama xéwal ba dëgg sama ba dëggal sama yonantu de wali suleymaan ñi tàggat ñeel suleymaan ariixa ngelaw xaasifatan muy aji lijji te jiri mu daw bi am yi ci ndigal suñu de ilal ardi mu jëm ci suuf allati da nga xam ne baarak naa barkeel nañ fiyaa ca moom de yonantu yàlla suleymaan nag doomam gannaaw ba nga xamee ne daawuda bàyyam génn na àddina moom lañ donn loo mu donn yonentu ga ba pare doon nu nguur ga yàlla daf ko tàggatalal ngelaw loo xam ne ci ndigal yàlla daf daan dem fu ko neex yonent yàlla e, Suleymaana dafa amoon ay ay fas ay naaru góor yu nekkoon ci moom naari góor yi nag yu bari benn bés nag ñu soxlaal ko walis julli tàkkusaan biñ ko soxlaalee nag walis julli tàkkusaan ah ci loolu rek mu ray leen ñoom ñëpp jaamoo ko yàlla yàlla daal di ko soppil defal ko ko ndax naa góor ñoo ko daan yóbbu fu mu dem yàlla daal di ko soppil dafal ko ko ngelaw loo xam ne fu mu bëgg def rek ngelaw mooy ñëw rek yóbbu ko benn ruqaa ah jinne yi nag liggéeyoon nañ ko benn kër goo xam ne kër gi yaatoo woon na juróom-ñeenti far sax guddee juróom-ñeenti far sax de ñetti junne seize seize manca benn benn junne ba ci urus lañ ko liggéeye benn junne bi ci lañ ko liggéeyee ci fidda ah, ah, kii boroom xam-xam yi ñoo ñu toog yeneen yi nag ci lay nit ñi di toog de ñi dafal ko ko ñetti téeméeri néeg lañ ko ko dafal ci biir kër googu pour ay jabaram jabar lu nekk am néeg bu mu dëkkee bu bëggaara tukki nag dafay dugg ci kër gi rek tëju ngelaw li ñëw rek dem moom moom lay alquran ne wane xuduwaa shahrun wa rawaa waa shahrun dox euh, bu bu bu xëyee dana dana dox doxab weer bu gontee dafay dafay dox doxab weer maanaam li nit di war a dox ci weer ci dëkk moom bo ci xëy la koy def lu nit di euh, dox ci ci weer ci dox ci ngoon moom ci ci benn ngoon la koy def de ndax moom yonent yàlla Suleymaana ma nga dëkkoon dëkk bu ñu wax Dumur fa la dëkkoon ca Shaam daf daan jugee iraq jëm faris jëm chine delluwaat ca dumur ci benn bés bi kon kon wud waa shahrun wara waa waa shahrun loolu la ko yàlla dafaloon moom Suleymaan de wakkun naa nekkoon nañu ñun yàlla di xam bi kulli shay'in ci lépp lépp lañ ko joxoon de lépp lañ joxoon yonent yàlla Ibrahim ñun xamoon nañ ko de wa min ash-shayaatini ñi tàggatal ko shaytaan man ña man yaxuusuuna ñe deneen xuus lawu ñeel ko de wala man yaxuusuuna ñe dañu napp lawu ñeel ko de woo ñu tàggatal ko ay seytaan yoo xam ne dañu nuuru ci biir géej gi buñ nuuroo génn lépp lu fay burus ak lépp lu fay lu lu ak marjaan lépp di ko génneel yonent yàlla Suleymaan de wa yaamaluuna dañuy jëf amalan jëf duna zaalika lu dul loolu eh, daneen ñu jëf nag leneen lu dul loolu mooy ay tabaxat ay yeneen yi di ñoom di ko defal Suleymaan de bokkul naa nekkoon nañ xaafidina di woy wattu lawum ñeel lawum ñeel leen de jinne yi nag ak luñ bon bon luñ mën a yàq ah yàlla wattu na wattoon na Suleymaan ci ñoom ba nga xam ne mënu luñ ko dara de xista yonent yàlla Suleymaan dana ñëw ci kanam ci saaru nam li dana ñëw ci saat insha allah ah waskur jàngatal ayuba solas yonent yàlla ayuba de is naa daa bu mu ñaanee rabbu boromam e anniye naka man masin e a masiniye jot na ma masiniye laal na ma addurru lor wante yow arhamu rahimina yaa gën a yërëm nga yërëm ñi de yonent yàlla ayuba ngoog kisaamaa ngoog nag ayuba dafa bokkoon ci jaami yàlla yi nga xam ne yàlla daf leen a mayoon alal lool ñii risaat lool am alal ju bëri moom la yàlla dafa yonent yàlla ayuba iblis nag bi nga xamee ne yàlla dàq na ko génne ko aljana génne ko péyam ba terewut yàlla yirul yàlla aayewu woon asamaan yi daf koo dàqoo rek péyam bi bu damaan ci asamaan nag ci asamaan yi juróom-ñaar dafay gis ayuba bërig alalam ak bërig doomam ak li ko yàlla mayoon lépp malaaka yi di bind ay yiwam rek ngir yu baax yi mu def ci alal ñiy bind ay soxla dara ñoom malaaka yi loolu di bind ayibu ay xasanaatam rek di ko bind ay jëfam yu baax lépp iblis nag ku bon la mu dem ci yàlla ne ko ne ko ayiba liñ ko may nii malaaka yëpp soxla di ko bind ay ay jëfam yu baax ñu koy bind boo ma xiiroon ci alalam ji boo ma ci xiiroon kon da xam kon dana weddi sa xéewal de xiir ma rekk ci alalam ji yàlla na ko demal xiir naa la ci ci alalam mu dem dajale jinne yëpp ne leen yàlla piir na ma ci alali ayuba ga waaw ku nekk na ma won dooleem benn borom jinne jub ifrit na ko man man naa soppeeku calliweeral safara ñëw lépp lu mu am ci gëlëm ma lakk ko ba mu jeex takk ba du dese dara mu ne ko waa damal naa la ndigal ci loolu mu dem fekk gëlëm mi fu mu nekk mu lakk ko lépp calliweeral safara ñëw lakk ko rey mboolem ay gëlëmam yam amoon ak sàmm yàgg yépp bañ dee iblis daal di soppee soppeeku kenn ca sàmm ga ñëw ci ayuba fekk ko fu mu mi ne ko gis nga sa borom bi ngay je bi bi la fenn sa gëlëm yi nga amoon yëpp lakk na ko sàmm yëpp dee nañ ah iblis eh, eh, ayuba ne ko yàlla moom moom moom moom moom moom lépp du ko neex na ko ci def de ah mu gis da dara mu mu mu mu mu ebalaat keneen mu dem def noonu nag ya ji mu demaat ci ayuba wax ko ayuba wax la mu mu demaat ci gàttam ya eh, eh, eh, def loolu ah mu waxaat ko ko ayuba def lam defoon ne ko yàlla moom moom gàtt yi moom lépp ah mu gis ne daal moom iblis def na loolu yëpp waaye ayuba daal terewut mu ngi sant yàlla rek mu delluwaat ci yàlla ne ko damaa bëgg na nga xiir ma ci doomam yi xiir ma ci doomam yi yàlla ne ko demal mu dem ci doomam mi fekk ayuba amoon na ñetti doom wala ñu ne juróom-ñaari doom mi ngi leen utaloon benn kër fa lañ di di di jàng ak sëriñ daara ba leen doon jàngal ah benn mbaram jinne ñëw rek ifritu daal di yëkkati taaxam koomu rek bëcc dëpp ko seen kaw ñoom ñëpp ñi dee ñii seen bopp yi tasaaroo seen buti di ñoom ñëpp ak sëriñ daara ba leen doon jàngal yëpp dee di soppeeku melaw sëriñ daa dem fekk ayib fa mu toog mu ne ko gi nga yàlla gi ngay jàmm faalewule sa doom yëpp rey ne sëriñ boo gisoon diw na boppam ba tojee nangam ak nangam nangam wax ne ayuba ne rek xonk ah ba mu xonkee rek mu kontaan de mu kontaan eh, eh, eh, ah, dem ci yàlla ne ko ayuba onk na de def naa ko ne waaye onk waaye bi ma laalee doomam bi daal xonk na hmm. yëg naa ne am na lu mu am na lu mu ci yaramam mu demee nag yàlla daal di yónniwaat malaaka ne ko damal wax ayuba léegi ne ko kooku ñëw di ko wax ak moom du du du du du sàmm wa du sëriñ dara waaye iblis la ayuba nag daal di kontaan noonu nag mu waxaat moom iblis moo bon mu demaat ci yàlla ne ko bi ma laalee doom mi yëngutu na onk na léegi jox ma ndigal ci ci ci boppam ba ma joxee ndigal ci boppam rek boobaa dana weddi sa xéewal yàlla ne ko demal waaye lu may làmmin wa ak xol ba ak xel mayu ma la nga jeexit ci dara de waaye moom ji moom jox naa la loolu neex dafa mu woo benn mbërëm jinne rek mu ñëw fekk ayu rek mu wal ko mu wal baati mbubam mi rek jëmm yëpp daal di niwi niwi woo xam ne ah niwi bu bu bu la noonu mu togg ci yàgg rek niwi di toj ba mu tojee def ay góom yaram bi yëpp nekk ay góom mel ni ay paaka ak i weñ lañ dugal ci yaramam di xotti yàpp wi mu ci gi yi nag. métti ba nga xam ne métti ba nga xam ne dem na ba yaramam bi di génnee ay dëtt ba jabaram yi amoon yëpp dem ne kenn desatu ko ne ko mënatuñoo nekk yow dëkk ba mu dëkkoon sax ñu génnee ko ba mu nekk ca biti dëkk ba fa la dëkk jabaram yi yëpp dem ba mu des rahmatu rahmatu rek moo ci des rahmatu doomi ibrahim rahmatu doomi ibrahim doomi yusufa moom rek moo ca desoon ci jabaram yele natt boobu dal na ayuba ñii ne dal na ko ñetti at ñii ne dal na ko juróom-ñaari at waaye bàyyi mi ne li mooy natt boobu yàlla teg na ko fukki at ak juróom-ñetti ci ayuba la ko teg ci moom yoo xam ne ayuba feebar na a yaram bi di génne dëtt mënatut a def dara dara lam amoon yépp ñàkk na ko de jabaram ju baax jooju nag mu amoon muy rahmatu moom nag ba jabaram yëpp demee moom mu des fa et bu xëyaan moo daan dem di utel ayuba lim lekk pour jox ko lum lekk ut bu seet mu def loolu ba benn bés nag mu ut ut ba sonn amul lum ko lu fu mu jëlee xaalis ba jëndal ko lum lekk mu dagg ci karawam jaay ci jaay ci dara pour mën a jëndal ayuba lum lekk biñ ko jaayee pare waa mu dajeeg benn góor mu ne ko yow sa jëkkër yi li ko dal yëpp dara waralu ko lu dafa jaamu borom asamaan te bañ a jaamu borom suuf loolu rek moo ko dal li dal yëpp loolu moo tax ah rahmatu nag bu damaan ci ayuba ak ayuba feebar gi mu feebar dana ko laaj ne ko foo jëlee lekk bi dana ko laaj di ko laaj di ko laaj ba ayuba wóor na ko alal ji lii muy lekk lu dagan la mu soog a lekk ndax yonent yi duñ lekk mukk lu daganut noonu nag mi ne ko ba bés boobu nag mu ñëw mu laaj ko mi ne ko sama kawar tey ut naa ba sonn aw ma fu ma jëlee ma dagg sama kawar ma dagg sama kawar jaay ko pour utal loo lekk waaye nag dajeeg naa foofu benn góor bu baax bu ma laayee biir bu la laayee biir mi ne ma boo gisee sa jëkkër li ko dal dal ko yëpp dafa jaamu borom asamaan te jaamu borom suuf ayuba ne ko kooku iblis la seytaane la giñ naa ci yàlla ne dinaa la dóor téeméeri ci loolu mu daal di delloo lekk gi rek dem nag di waraat leneen pour uti noonu nag fi mu nekk ci néeg bi ñu ko dugal bu mu moon feebaree am ñu romb ay noonam di ko ndokk naan ñaw kii di wax ne ab yonantu yàlla la kii duur sax waliyu yàlla bu nekkoon yonantu bi yàlla lii dal ko du ko dal lam amoon ci ay doom lépp dene lam amoon ci alal lépp dem na ma nga nii feebar feebar boo xam ne mënatuta dara bàyyi ne ne waliyu yàlla yi ku leen ndokk rek lañ ba ñaw xamoon naa lii dana leen dal ba mu déggee ndokki noona mi rek bàyyi mi ne ci la alxuraan mi ne ci la ñaan ñaan gi de ne rabbi ne ne ne ne mi ne moo mi ne mi mu wax ne maseniya jot na ma abdur lor wante yow arhamur rahimina yaa gën a yërëm way yërëm ñi de bàyyi mi ne selul ñaan gi ni mu amee teggin ni mu amee naa wax rek ne yàlla dama feebar nag ma wéral waaye daf ne lor lor daf na ma de yow waxul sax nag ma wéral waaye daf na ko yow yaa yaa gën a yërëm booy yërëm bi ah ca saar wax ne anni ah anni masini cheytaanu bi nusbin wa adabin loolu la waxoon bim ñaanee ñaan googu nag fastajab naa tañ nangu lawu ñeen ñaanam de <coughs> yàlla bi mu gisee ñaan gi teggiin gi ñaan gi àndal rek yàlla nangul na ko ñaan de ba kashaf naa te ñun ñii maa bii la nekkoon ci moom min durliñ ci lor de waa tey naaw te jox aalu ñu ñoom maa wa misloo ak keme maamum ànd ak ñoom de rahmatan muy yërmaane mi ne dinaa tukkee ko ci ñun wa dikra te di waare lil aabidina ñeel way way jaamuñu yàlla de <clears throat> ah nga xamee ne loolu am na nag ba ayuba ba ba rahmatu dem di ko utili waa lekk mu ñaan ñaan gi yàlla daal di ebal jibril ba jibril ñëwee rek ne ko kët daal sa tànk urkut bi rijlika hada muxtasalun baaridun kët daal sa tànk ci suuf ba mu kët daal ba mu dóoree tànkam ci suuf rek ñaari sew di génn benn bi ndox mu tàng jër la benn ndox mu sedd guy la jibril na ko naanal ci ndox mu sedd mu naan ci ndox mu sedd mi lépp lu nekkoon jàngoro ci biiram wér ci sansa bàyyi mi ne mooy docteur yi mm-hmm. mu ndox mu tàng mi ne ko sangoo ji mu sangu ci rek lépp góom yi nekkoon ci moom yëpp wér ba mu delluwaat na meloon rafet lool ba nga xam ne ayuba ci nit ñi bëgg gënoon a rafet ci la bokk yàlla delluwaat ko taaram bu rafet boobu rek dundalaat gëlëm yam ñàkkoon ak nag yaag xar yaag seeni sàmm yaag yépp doomam ya su fekkee ñett lañ woon yàlla dekkal ko muy juróom benn do doom ju nekk ba muy ñëw indaale na rakk su fekkee juróom ñaar la kuy ñëw indaale na rakk mooy fukk ak ci ay doom yoo xam ne ñëw nañ fekk ayuba nag amoon na benn hangaar boo xam ne euh, fa la daan weer tàndarma yàlla daal di ebal ni ñi na ko na nga taw foo urus ba mu fees ak xaalis mu taw urus ba mu fees ak xaalis ba mu fees benn ci këram noonu nag yàlla daal di <coughs> yàlla daal di ay njéeréer ay njéeréer yoo xam ne njéeréer yi mi ngi leen liggéeyee ci urus euh, ah ñi naaw di naaw di dugg kër ayuba bu ñëw rek ayuba di jàpp <coughs> di jàpp rek di dugal ci poosam yàlla ne ko ah ay li ma la defal yëpp ci xéewal ngay ngay tëb ci naaw di jàpp ay ay ay njéeréen nii mu ne ko yow yàlla kenn du doylu sa xéewal de sa xéewal kenn du ci doylu ah noonu nag <coughs> rahmatu nag daal di départ ba mu di wër rek di wër rek ndax góor gam fa bàyyi woon ak góor gi mu fekkaat bokkul mu ngay wër rek di seet di seet naan waaw di seet rek naan man ana góor gu ma bàyyi woon fi ayuba oo ko na ko waaye ndaw si yow looy seet mi ne ko dama fee bàyyoon benn miskin mi ngi feebar feebar feebar boo xam ne mi ngi feebar daal ma bàyyi woon ko fii dem di ko utal lu ne ñëw fekk ma ko fi muy wax ak moom ayib ba bëgg ko woon ko man la muy wax ak moom di wax ak moom ba mu xoo ba mu seetlu ba ci yàgg ne ay yow yaay ayuba de mi ko man maay ayuba de alhamdulilahi alladi zahaba ah zahabal balaa atallahu bi xayran de bil xayri de mi ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne demee na mboolem ah, ah, yàlla deme na balaa yëpp waaye indi nañu ay yiw de lépp di yëpp indi na ko de indi waatal nañu lañ ñàkkoon suñu gëlëm yi ñàkkoo yéen ñàkkoon suñuy doom doom ji ñëw ba muy ñëw ànd naag rakk ànd naag rakk tey gis nga urus ni mu le ci ñi lépp yëpp yow na de kooku mooy ayuba de bokk ci jaami yàlla yu tedd yàlla wax ne innaa wajadnaahu saabiran ni'mal abdu innahu awwaab yàlla tagg na ko ku bokkoon ci muñ kat yi fukki at ak juróom-ñett la ko yàlla teg natt boobu mu koy moo tax yàlla tagg na ko ne ne neama baanaal abdu jàmba kan la ayuba ayuba de kon kooku moy ayuba moo tax mi ne rahmatan mu yermaane mi ne dinaa tukkee kooku ñun wa dikraata di waar lil aabidina ñeel way jaamu ñu yàlla de waskur tu jàngatal tuddat ismail ismail de wa idrisa idrisa wa kifli ak borom yarba kulun képp ci ñoom mina saabirina aji bokk ci way muññale ñoom ñëpp tamit ñu bokkoon ci way muññale Ismaayil ak Idris ak Zulkifli ñoom ñëpp waa daxal naa woon xaram nañ leen fii rahmatinaa ci jër ci jërmaandi suñu de innahum naka ñoom mina saalihiina aji bokk ci way yi wazal nuuni jàngatal solos yonentu yàlla Yunus ibnu Mata nga xam ne yàlla yónni woon ko ca Mawsal ci Iraq moom la ko yónni woon izahaba ba mu demee mugaadiban mu way aji mer fadanna tam njortu annaka lay mbir tey mbir lan naqdira dogal ci nga ci moom lañ dogal ci moom ba mu génnee de fa naadaa tam hoo fi zulumaatin ca lëndëm ya ne annaka lay mbir tey mbir laa ilaha déet buur illaa anta ndera yow subhaanaka tudd na ma sell sa inni naka man kuntu nekkoon na ma min a zaalimina ca way tooññe de yonentu yàlla yunus la yunus ibnu mata yónnente bi yàlla la woon boo xam ne yàlla daf koo yónni woon ca mawsal ci iraq fa ko yónni woon de mu sax ca nitam ña nag diir bu yàgg di leen oo jëmee leen ci yàlla nitam ña bañ ne duñ ko gëm moo yàlla nag dë dëhal ko ne dinaa wàccee ci nitam ñu mbugal de mu génne gàddaay ci lu dul ndigalal yàlla ñooñ loolu yàlla du ko nangu ci ay ñoñam génn eh, gàddaay te yàlla joxu la ndigal loolu yàlla du ko nangu de moom nag mu génn gàddaay wóolu ne mbugal mi nga xam ne moom la wax ay ñoñam mbugal mi dana wàcc ci moom eh, dana wàcc ci ñoom mu génn nag nga gàddaay pour dem de wax leen ne leen mbugalam yàlla dana wàcc seen kaw de waaye génn na ci lu dul ndigalal yàlla moo tax ba mu génnee njort ne li ko dal ca yoon wa dana ko ca dal de noonu nag mu génn dem eh, fekk benn dem ca géej ga fekk fa génn gaal mu dugg ca gaal gi ne dafay génn dem beneen dëkk ba mu duggee ca gaal ga nag aa ah, gaal ga daw ba ca digg géej gi rek géej ga natt deeg ñoom gaal gi bëgg suwo capitaine yi gaal yi wax ne lii de bu ñu mosaana dal ci suñ gaal yi rek kon jàmm buy daw sangam la kon am na koo xam ne daw na sangam de moom moo nekk ci gaal gi rek bu leen dalaan nag loolu dañuy wanteel ñi wanteel nag ñi wanteel bañ wantelee bant ba dal Yunus ñu ne déedéet lii kay mënta ne kii ab yonent bi yàlla la ñi wanteelaab ñi wanteelaab ñaari yoon mu dal ko ñetteel yoon mu dal ko moom ñi am kersa nag moom mu sànni boppam ci biir géej gi de ba mu sànnee boppam ci biir géej gi nag géej wenn jën daal di ñëw rek daal di ko wann jën woowu weneen jën daal di ko wann de weneen jën daal di ko wann ba mu nekk ca guddi ga nag mu dégg mbooleem jën yi nekk ci biir géej gi ñoom ñëpp ñu ngay sàbbal yàlla di tudd yàlla naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah yonentu yàlla yunus daal di tudd yàlla moom itam de ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin de ah bi mu waxee loolu nag fekk jën woowu wan noonu yonentu yàlla yunus guddi gi ci guddi gi ba guddi gi tàmbalee jabaram ye eh, daf koo sàkku ne ko ñëwal nga sëyeeg man jën wi bañ na ko du ma sëyeeg yow tey ndax am na mbóoti yàlla wu nekk ci man du ma sëyeeg yow de du ma sëyeeg yow de du ma sëyeeg bañ na du sëyeeg moom bañ googu mu bañ na du sëyeeg ja di du di du dem ci ba du topp bànneex eh, dem ci shahawaat yooyu ci la ko yàlla ci la ko yàlla terelee ba mu wan na ab yónnentab yàlla waaye jën woowu bokk na ci nundat yi nga xam ne ñoom ñooy dem aljana fukk lañ jàngatoon nañ ko def noonu nag mi ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin de bi mu waxee loolu rek ah géej jën wa fekk yàlla bi mu wan euh, euh, moom jën bi mu wannee yonentu yàlla yunus rek yàlla wax yu ne ko wax yoog ilham ne ko kooku ñi nga nga wan duwul sa wërsëg tey duwul li nga war a wërsëg luñ la suñ wërsëg luñ lay jox tey déedéet dañ la ko dénk rek def nañ ko euh, def nañ ko kaso mu mu ñeel ko wala ñu ne def nañ ko jàkk waaye bàyyi mi ne mi ne wax ne jàkk la moo gën a yella moo nekk adab gën a yella ci ab yonent bi yàlla moo tax yàlla na ko innamaa ju'ila batnuka sijnan wala innamaa ju'ila batnuka masjidan bàyyi mu ne def masjidan def naa ba biir bi mu nekk si yow mu nekk jàkk ñeel ko de waaye bi mu waxee loolu rek la ko eh, eh, eh, fa nabasnaahu bil araa'i wa saxima ci la ko yàlla ci la yàlla jox ndigal jën wa rek ne ko nang nga ko na ko na nga ko gàq na ko yabli mooy ba mu waxee laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ba mu ko waxee rek ci la ko jën wi daal di gàq ca tefes ak géej ga mu gàq ko waaye ba mu génne yaa ngi gis yaram wi mi ngi am ay góom yàlla daal di ebal garab ak naajo mu sax ci moom mu sax foofu garab googu nag sax na fa yàlla saxal na ko pour bañ góom yi nekk ci moom bu ko weñ yi di laal dana mujj yaram wi yëpp dafay mujj nekk góom moo tax yàlla jël garabam naajo daal di ko fa saxal ebal am am am kéwél euh, ngoon gu jot suba gu jot mu ñëw mu ratt meew naan ngoon gi mu def noonu ba yaram wa delluwaat fam delluwoon de moom moom moom moom yonent yàlla yunus de mu wéraat nag wér képp bés nag mu nalaw ba mu nalawee rek max gi daal di ñëw lekk garab ak naaju gi nga xam ne moom la yàlla saxaloon foofu ah yunus nag daal di tiit nag tiit lool yàlla daal di ko wax yu ne ko yow max gi lekk benn garab rek moo lay tiital te junne téeméer junne nit ña nga fële war a aluko loolu tiitalu la lii di la tiital ah wa arsalnaahu ndax dañ ko yónno moom lay àqoon wa arsalnaahu ila miati alfin aw yaziduuna fa amunu fa mataanaahum ila hinin waaye mu delluwaat ci nitam ña ba mu delluwaatee ci nitam ña nitam ñi da di tuub ah, gëm yàlla nekkaat ci diine de moom kooku mooy yónn yónnantu yàlla Yunus ba nekkee ca lëndëm ca lëndëm ak euh, ak lëndëm ak ak lëndëm bi e, e, géej de moo tax yàlla tuddee ko ay lëndëm de lëndëm yooyu nag ba mu ca nekkee ana lan la sabal laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin fastajabnaa te ñu nangul ko euh, fastajabnaa te ñu nangul lawu ñeel ko ak ñaanam wanna jeynaaw tañ musal ko minal xam mi teg njàqare ja njàqare gam nekkoon ñi musal ko ci de wa kadalika naka noonu ñi musalee yonentu yàlla yunus ca jën wa nun ji la nun la ñuy musalee al muminina way gëm ña de noonu la ñuy musalee ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla kenn ci saalixiina yi wax na ne xéem nañ moos koo xam ne njàqare wàcc na ci moom tam xam laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina te waxu ko yéem nañ mos koo xam ne njàqare dal na ko te waxul loolu de ndax la ca topp fastajabnaa lahu wa najaynaahu min alxammi de képp ku am njàqare mu wax loolu rek yàlla dana ko génnee ci njàqare yi de wayu saalihiina yi wax nañ tamit ne képp koo xam ne ñi ngi koy ne daneen ko mbugal daneen ko mbugal mu xam wa ufudu amri ila allah inna allah basirun bil ibadi mu xam ko te waxu ko kooku yéem nañ mbiram de ndax yàlla lam ci teg fa waqaahu llahu sayyaati ma makaru mais yàlla danañ ko musal ca gars yi pexe yi koy pexeel de képp kuy noonam di pexe rek na wax loolu de yàlla dana ko ci musal de wax nañ tamit ne yéem nañ koo xam ne ay noonam ñu ngi koy xupp ñu ngi koy xupp ne daneen ko rey ay noonam di wax ci moo wax yu ñaaw ne daneen ko rey daneen ko nangam mu xam xasbunallah wa ni'mal wakil te ndax la ca topp fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsasum suun loolu moo ca topp de kon képp koo xam ne nekk na ci njàqare na wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin de na ko wax bu nekkee ci njàqare njàqare gu mën a doon njàqare ki dana dañ képp koo xam ne ñu ngi koy tëkku ci kasoog lu mu mën a doon bu wax ne wa ufidu amri ila allah inna allah basirun bil ibadi ah, yàlla dana ko musal ci loolu de képp koo xam ne ay noonam ñu ngi koy di ko wax lu nekk na wax hasbunallah wa ni'mal wakiil de képp koo xam ne feebar na feebar na eh, eh, feebar boo eh, feebar tiit ci lool mu feebar na jàng la na jàng laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin te ñeent fukki yoon nag ko jàng dana su fekkee ne wérul nag feebar bi ba dee ci bu dee ci darajaay shuhadaa ci lañ koy yégal de kon mi ngi noonu jël leen ko de waskur jàngatal zakariya yonent yàlla zakariya de xissa juróom-ñeenteel a ngoog na ndax bañ tàmbalee saar yi wax naa leen ne saaru saaru yonent yi lañ ko tuddee moo tax tudd nañ ci ay yonent yu bëri de xissa ak juróom-ñeenteel a ngoog ci yonent yi zakariya zakariya isnaada ba mu ñaanee rabbi yow borom sama laa tazar nii bul bàyyi ma fardan may aji wéet ci lu dul doom de wante yow xayrul waarisiina yaa gën ci way doon loo ye fastajab naa tañ nangul lahu ñeel ko ak ñaanam wa am naa tañ may lahu ñeel ko yaxya yaxya wa aslax naa tañ yewenal lahu ñeel ko zawjuhu jabaram innahum nag njiñ yewenal jabaram de <coughs> yonent yàlla zakariya ngooku dund na téeméer ak ñaar fukk mënta am doom mu ñaan yàlla ci digg guddi mooy ñaan gam ñaan ca saaru kahfi isnaada rabbahu nidaan xafiyan ci digg guddi la toog di ñaan yàlla ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma doom nga may ma doom may ma doom yàlla daal ko may doom de yàlla may ko doom yaxya yéwénal jabaram nga xam ne dafa dafa jërmee loon ba mënta am doom mu ubbi ruumam gi pour mu mën a am doom de moo tax ñu ne képp koo xam ne sëy naa jabaram lu yàgg mënta am doom na xaar bu guddi gi xaaj ñetti xaaj muy ñaan yàlla naa rabbi laa tazar laa tazar ni alal eh, eh, rabbi eh, rabbi laa tazar ni fardan wa anta xayrul waarisina wa anta xayrul waarisina mu koy ñaan bu koy ñaan ci digg guddi yàlla dana ko may doom de nay ñaan loolu rek taxoo di ñaan loolu ndax yonentu yàlla Zakariya bi nekkee ci loolu téeméeri at ak ñaar fukk mënta am doom bi mu koy bu mu toogee ba digg guddi ñaan ko yàlla rek yàlla daf koo nangul ñaanam de fastajabnaa tam nangul ah lahu ñeel ak ñaanam de wa am naa tam may lahu ñeel ko yaxya yaxya wa aslahnaa te yewenal lahu ñeel ko zawju jabaram innahum naka ñoom yonent yooyu ñu tudd ci saar wi kaanu nekkoon nañu saar yu na doon njëkkalante doon gaaw fil xayraati ci yow waaye doon na te danoon ñaan yàlla raxaban ngir xamam yërmandeem wa rahaban ak ya ak ragal mbugalam de wa kaanu nekkoon nañu lanaa ñeen ñi wa kaanu nekkoon nañ li tax yàlla nangul leen ñoom ñëpp seen ñaan mooy ñoom dañ daan dañoo ragal dañ doon gaaw di def lu baax lu baax rek lañ daan def de dañ doon njëkkalante di def lu baax képp koo xam ne yàkkamti ne di def lu baax kooku heure bu ñaanee yàlla yàlla dana ko may de loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne taarafa ila llahi fi raqa yaarifka fi shiddati na nga yàlla na nga na nga xam ci yàlla boo nekkee ci waxtoog jafe-jafe eh, na nga ci na nga nga fexe ba yàlla xam eh, eh, boo nekkee ci waxtu yomb-yomb na nga fexe ba xam yàlla ndax boo nekkee ci wax waxtu jafe-jafe mu mën naa dimbale de wallati wasku tuddal jigéen wallati tuddal jigéen ji nga ne axsana di wa axsana wattu na farja payam fa nafa naa tañ wal fiyaa ci moom mi ruuxi naa ci ruuxu suñu te mooy Mariam wa naa te ñu def ko moom Mariam wam naa ak doomam ayatan muy capteur yi laal mi ne ñeel mi ndefi de ñi teg jinne de ndax jur na doom ci lu dul bàyyi de inna haasi naka li de inna haasi naka bi la diine ummatukum mooy diine seen ummatan diine waahidatan bati benn wa ana man rabbukum maay borom seen de faabudu nii ni ngeen ma weetal ak jaamu de wa taqattoo te dagg amroom mbir seen baynum ci diggante kullum képp ci ñoom raajoo na way dellu lañ ilay ah fasantikoo nañ yahudi yi fasantikoo nañ di ja di eh, eh, nekk di sàkkal yàlla bokkaale ak nasaraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yahood yi fasantikoo nañ juróom-ñaar fukki fasantikoo ak benn ñëpp safara lañ jëm nasaraan yi juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay fasantikoo ñoom ñëpp safar lañ jëm sama xeet xam naa fasantikoo juróom-ñaar fukk ak ñett ñoom ñëpp safara lañ jëm lu dul e, mbo lu dul ñi nga xam ne ñoo nekk ci man li ma nekk ak sumay sahaaba de man yaamal ku jëf na mu mina saalihaati ci jëf yi wi woote moom muminu muy aji gëm wala kufraan a teg weddi a saa yi jëmam way naan na ko ñun kaati bu na way na nañu la wu ñeel ko wa xaraamun aji xaraam la ala qariyatin ci dëkk ci dëkk alak naa boobu namu nañ ko alak annahum laa yarjiuna ak dellu seen de yàlla nag dëkk boo xam ne namu naa alak namu naa alak dëkk boo dëkk boobu kenn mënut a delloo mbugal moom de moom e, e, atta ila futihat topp ndem gu bina yaajuja maajuja wa maajuja ak maajuja wa hum ñoom yenti na dañuy gaaw min kulli adabin ci bépp tund ci biir waxtaraba te jege al waxdu dëhël al xaqu bay dëgg fa ida fa ida am til la fekk yee ñoom shaqidatun ñi aji buqi ñi aji buqi absaaru lazina bëti ñi nga xam ne kabaru weddi nañ de ñi wax nag ne yaa wali naa est ce que nag xalaku suñu xat kun naa nekkoon nañ fii xaf lañ ci sàkkan min haza ci li ci bés bi lee bal bàyyit kun naa nekkoon nañ zaalimine di way tonje innakum naka ñoom waa màkk wa maa taabuduna ak ñun jàmm min duni laay dudul yàlla hasabu jahannama mattam jahannama la antum yéen waari duna way way xaraf ngeen lahaa ci jahannama de law kaanu nekkoon a ulaayi la yàlla comme ni ngeen ko waxee maa war a duwaa kon rotuñ ci safara de wa kullum képp ci ñoom xaaliduna way bi leen fiyaa ci jooju de safara de lahum ñeen leen fiyaa ci safara safirun ak salqat wahum ñoom fiyaa ci safara laa yasmawna defuñ dégg de laay ji nag ba mu Abdou euh, kii Abdoul Aziz ibnu Zabara ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci waa Màkk ne leen dama bëgg rek ngeen digal ma dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma demee ci yonent bi ko mu dem ba mu ñëwee wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wax nga ne e, li ñuy jaamu yëpp ak li ñuy jaamu yëpp ñoom safara lañ jëm ñëpp safara ki ñuy jaamu ak li ñuy jaamu yëpp safara lañ jëm mi ne ko waa mi ne ko xam nga ne yahudi jaamu nañ Uzayr nasaraani a nañ Masiya ba ñuy mal jëm jaamu nañ jaamu nañ malaaka yi su fekkee ne ñooñu ñëpp ñiñ jaamu ci ñooñ safara lañ jëm kon ñun ñu nekk ak Isa ak Useyr ak malaaka yëpp ci biir safara ah loolu ñun loolu ñun amul dara lu ñu ci métti de mi ne nag rëbb giñ naa ci borom néeg bi ne not naa Muhammad not naa Muhammad de noonu nag yàlla daal di wàccee ne inna allazina naka gaa yi ne sabaqat jiitul lahum ñeel min naa ci ñu alxusna gëm yàlla alxusna aljana ulaayika ñooñu la gaa yi mu ba àdduna ñuy la safara de ñooñu safara de laa yasmawna deefuñ dégg xasiisahaa itam wahum wahum ñoom oh, oh, xaaliduna woy béet lañ ay bopp seen fii ma ishtahat a ca la foyteef la ko de ca la neex seen i bakkan laa de de ah laa yaxzunuhum tiituñu ah defu tiital leen alfasaxu njàq rek al akbar ngay aji mag de wa talaqa ah wa talaqaahum ah wa tatalaqaahum dana dana gàttanu ne almalaayikatu de haada yu leen bés yawmukum mooy seen allazi ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuwaaduna def la tëkkoo leen fa de ñoom nag moom nag ba waxee lool yàlla na ko ñooñu nga xam ne yàlla digaloon na leen ne leen yàlla e, e, e, def na ci ñoom ak yàlla ñooñu ñu sori leen safara de ñooñu riitam safara ma sax duñ ko gis duñ ko gis waxuma laak bay tàbbi ci safara de ñooñ kenn mënu leen a dugal safara de duñ dugg safara mukk duñ dugg safara de waaye ñoom ñoom nag waaye dañoo juum de ndax yàlla ba maa la wax bu waxoon ba man taabuduna sax dana xam ne comme ñoom ci lañ bokk ak ñooñu ci waaye yàlla kii la wax de ba maa taabuduna la wax de yow ma natt wi fàttalikul bés ba dana taxañ asama asamaani juróom-ñaar ka tey sijili kem ak lem ak malaaka mu tudd sijil lil kitaabi ñeel téere ba dem te kama bada ana naka ñu sore woon ka awala xalqin ca njëlbéen ak ca njëlbéen ak bind te dowutoon dara nu iddu lañ koy delloo wax dan muy dëgal alay naa ci de in naa nako ñun kun naa nekkoon nañ faa ne di way jëf de wala xat a wala xat katab naa ñun de bind nañ fi zaboor ci zaboor min baadi zikri fa gannaaw ummul kitaab mooy gannaaw ndeyi téere ba ci yàlla an na ne an nal arda na ko suufi aljana yeri suwa dana doon ko ibaadi yee jaam sama asaalixuna ñi di wayiw ne inna inna fi hada naka nekk na ci jile alquran la balaagan jotal li qawmi ñeel ñi di aabidina ñi di way jëfee ko de wa maa arsalnaako yónni wuñ la yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illaa rahmatan dana nga yërmaane lil alamina ñeel moo leen mindee bi de yónni wuñ la yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu nekk yërmaande ñeel moo leen mbindeef yàlla yi de moo tax pencam yàlla ñëpp daneen wax nafsi nafsi waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ummati ummati lay wax de ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom rek mooy jaamam yàlla ci dëgg waaye bépp jaam rek xaaj nga ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax bépp yonentu pencam yàlla nafsi nafsi lay wax waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi rek moom mooy wax moom mooy wax lan ummati ummati ummati de yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj na jibril ne ko ndax sama yërmande ki yàlla tuddal ndax yërmaande googu yow dana la eh, eh, eh, ndax dana la laal danga ci jot jibril ne ko man de damaa ragaloon lool sama mujj bi ma gisee iblis la ko dal damaa ragaloon lool sama mujj waaye nag ah, waaye bi ma bi ma ah, bi ma yàlla waaye bi ma bi ma yàlla tuddee ci alquran sama melo ne zi quwwatin inda zil arshin makinin mutaayin sama amin ci laa soog a am kóolute ci tagg googu yàlla tagg ma de xul xul waxal innama yuuxa nekk def nañ wahyu ilay jëm ci man annama ilaakum naka naka yàlla seen ilaahum yàlla waahidun da di benn de faal antum faal antum muslimuna waay jaamu leen yàlla de nga amuti leen jaamu yàlla de fa in taw leen dem dëddu ngeen fa qul waxal aasantukum dana mu xamal leen ala sawaayin ci xemoo loo xam ne maag yéen ñoo ci amoon de a xaw ma kañ la wa in adri déet may xam ak xaribu ndax aji jege mu am baidun am aji sori la de maa tu aduna def na tëkkoo leen ko ci mbugal innahu naka moom buur kawe na yàlla mu dana mu xam aljahra aji biral min qawli ci wa wa yaalum dana xam maa taktubuna da ngeen nëbb ko de wa in adri déet may xam la allahu ndax de moom ah, fitnatu nattu la de ah, wa lakum ah, lakum ñeel de wa mataan ak yóbbul ilaahi nin jëmb ci waxtu dig seen jeex ak dig seen de xul waxal yow yonent bi rabbi yow borom sama waxkum atteel bil xaqi ci dëgg wa rabbuna borom suñu arrahmaan mooy aji yërëm ja almustaan mooy kuñ dimbali ko alaamaati si bu ne ci lépp lu ngeen mel lan ne ci weddi yonent bi ak ja wax ne yàlla dafa am ay doom ak wax gi ngeen wax ne alquran jabar la ak wax gi ngeen wax ne wér euh, euh, euh, ak wax gi ngeen wax ne wéy la de suratul hajji saaro haj makkiyatun kañog makk la illa wa min annaasi man yabudullah a ayatin aw illa aw illa adani xasmaani a sitta ayati juróom benn aya fa madiniya ah fa madiniyatun kajoog madina la waaye moom arbawa ñeent la aw xamsin iki juróom aw sitin iki juróom benn aw sabin iki juróom ñaar aw samaanin iki juróom ñett wa sabuna ak juróom ñaar fukk ayatan ci kaw tef de allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayidil awalina wal axirin yàlla mu ko tàmbali ba ak si fii yàlla na ko àggale jàmm te bañ cee def ndog yaara bi yàlla mu ko xam dëgg-dëgg yàlla nañu ko xamal yaara bi barke diinal islam barke alquran yàlla ka ko wasal ak ki ñu ko wasal ci ñun ak li tax ñu wasal ko ci moom yaara barke diinal islam barke tariqa Cheikh Ahmad Tidiane barke Maam Alhaaji Abdoulaye barke Baye allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim